2016. mu nekk waaw dina métti de. nekk bureau 80. foofu nag. Euh, euh, non 513 inscrits moo ci am. Euh, Idriss Seck am fa deux cent treize Macky Sall quatre vingt et une Sonko tayan euh, fii mi ngi nekk cinq cent douze euh, inscrits votants yi nekk trois cent dix huit Idriss Seck am na ci deux cent neuf voix Macky Sall toujours moo topp ci gannaam di soixante quinze voix Ousmane Sonko quatorze Madické Niang am 11 Issa Sall am 4. Euh, ñu den ak suñu nattangoo bekkaay bu 2 ñu ngi koy euh, félicité moom itam ci liggéey bi ñu ñëw ci bureau 82 euh, foofu nag nombre d'inscrits mi nekk 516 votants yi nekk 335 ci 335 yooyu Idriss Seck am na ci 216 voix Macky Sall 75 Ousmane Sonko 24 Madické Niang 16 Issa Sall une voix. Euh, ñu ñëw ci bureau bi nga xam ne moom moo ci topp di 83 euh, foofu boo xoolee 518 inscrits la 306 euh, votants Idriss Seck am na ci 201 voix Macky Sall 65 Ousmane Sonko 21 voix Madické Niang 16 voix Issa Sall 2 voix moom mooy bureau 83 bi boo ñëwee fii ci bureau bi nga xam ne mooy 84. Euh, foofu euh, nombre d' inscrits mi ngi nekk 514 nombre de votants mi ngi nekk 347 euh, ñu ñëw ci Idrissa mu am 231 voix Macky Sall 69 Ousmane Sonko 22 Madické Niang 19 Issa Sall am 4 voix mooy bureau bi nga xam ne mooy 84 nga ñëw ci 85 bi moom itam nombre d' mi ngi nekk 513. Euh, nombre de votants 327 euh, ñu ñëw ci résultats yi Idriss Seck am 223 euh, Macky Sall am 68 Ousmane Sonko ñëw ak 17 voix Madické Niang 17 voix Alaaji Issa Sall mm, am moom une voix donc loolu mooy li nga xam ne mooy bureau boobu ñu ñëwaat ci bureau 86 foofu nag nombre d' inscrits mi ngi nekk 513 votants yi nekk 330 bu ñëwee ci euh, Idriss Seck mi ngi am 219 voix euh, Macky Sall 65 euh, Ousmane Sonko 21 voix Madické Niang am 20 Issa Sall moom jotu fi am dara.